الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطاعة ربي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه رضي الله تعالى عن شيخنا شيخ الخديم صدق بساني نبي الجناني صفي أماني وزد بلائي بوكي جولتيني تيرو بوكي واسنا قال جيب راجنا يسن بوكي دك فيجي نغاي ما اكفيب فوكو يولي نداجي سين شين يوتيوب بي دي اكسون بوكو سليم مصطفى باو li mu taxawal ñu fas yéene cee ñëw rek di ci fàttalante leen suñ suñuy diine yenn saa ñu am fi émission boo xamante si ne dañ ko bëgg a tuddee ak nasiha wala ñu tuddee ko laay wilante ndax bu nekk xam na ni doomu aadama bi ko yàlla sàkkee da ko wan lu baax wan ko tamit safaanam imma shakira aw imma kafura rek moo fi am loolu nag day jël saa su nekk ñuy jéem a wan ñi bii fii mooy yoon bu baax bi waaye fii mooy yoon bi nga xamante dafa mat a moytu doonte ñun tuuti nañ ci sax waaye xëy na moo moo sàkku rek ci suñuy jëmm yi doonte lu ñuy néew néew néew néew xam li ci ëpp ci ñun ñu koy seetaan see ay boromi karaw yu ñuul leen baax ndax ku ne xam nañ ni ndaw la ñu gën a soxla ci lislaam te ndaw li tax mu war a góorgóorlu mooy faatu moom xamul ndaw xamul mag ñëpp ñooy dee boo demee ci sëg yi di nga fa fekk ay gone di nga fa fekk ay mag. kon daanaka ñun ñëpp ñoo war a góorgóorlu ci jaamu yàlla comme nag euh, li ñuy wax li kulli makkaanul maqaal aw li kulli zamaanul maqaal jamono bu nekk rek li nga xamante si mooy actualité loolu la ñu wax di waxtaanee moo tax tey jii euh, ñu bëgg a ñëw ci jaamu yàlla ju tedd ji nga xamante si ci lañ toll fan yii yëpp daanaka doxal nañ ci ay bis sax muy cheru ramadan mubarak bokk ci ponk lislaam yi nga xamante si jullit bu xas ba doon mu kàllaaf dafa gàllu ci loosam mu def ko bu amul benn ngànt su ko deful ñu teg ko ay daan daanaka boo xoolee sëñ Touba ci benn téere bu ñuy wax Tazul Ziraar boo fa demee dañ fa fekk muy wax ni képp koo xamante ni si daa a julli dañ koo war a su fekkee koo xamante ni si moom dafa weddi julli kooku dañ koy tubloo ñetti fan su bañee ni moo gëmul julli ñu doo ko rey te buñ ko reyee nag duñ ko suul ci sëg yeeg ay njabootam duñ ko doon nag. maam di ko jëmale xel balaa yu bëri la daal ko dem ci téeram di ko fekk waaye bu fekkee koo xamante ne si moom gëm na julli sax waaye moom daa tàyyeel wala mu ni man du mat julli wala du yoon noonu kooku moom nee na waxtu su jotee dañ koy taxawaloo ni ko diw julli su bañee julli ñu lay ko loolu tamit moo am ci weeru koor koor képp ku ko tey te julli woo bu doon islam day wax dañ lay daal di lay kon loolu day wane ne loo xamante ni si la julli bi da ko war a góorgóorlu di ko daal di def waaye alhamdulilah muy weer woo xamante ni si weeru promotion la ku ci nekk ci nga xam nga ni booy jënd crédit yaa ngi gën a jënd crédit jamono bi nga xam ne orange nee na day def promotion bu fekkee ni weeru koor la moom kenn xamul fu wax ni asiyaamu bi nee na jaamu yàlla yépp moom maanaam euh, ko ci def góorgóorlu rek nag moom nee man dama man maa koy fayal sama bopp kon loolu ab jagleel boo xamante ne bu wéru koor gi dal di dal di dal di dal di am waaye borom bi suñu suñu borom fàttali ñu ko ci alquran ni ñu bindal naa leen woor ni ma ko bindeeloon ci seen yemalam ngir ngeen ngeen jëlee jëlee ci agal yàlla يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون waaye li nga xamante si moo ëpp solo ci doomu aadama nga xam ni ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp képp ko xas ba doon jullit su ko jàng ak su ko jàngul xam na ni mooy téere bi nga xamante si mooy téere lettre bi ko yàlla yónnee message al ko ji mooy alquranu karim ci weeru koor la wàcc chehru ramadan allazi unzila fi alquran hudan linnaas wa bayyinatin minal hudaa wal furqaan kon nekk na loo xamante ni si illa ju leer la joo xamante ni si borom gi daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko jàngale waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos naa toog jibril fekk ko mu toogandoo saxaaba yi fekk jibril na dafa mel ni ko doon nit waaye ñoom boobu xamuñu jibril la bu ñëwee di ko laaj nan ko lan mooy iman suñ bo yonent bi leeral ko mooy gëm yàlla gëm malaaka yi gëm yonent yeeg yooyu noonu bu ñëwee ko mooy nga wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waaye beneen bi mooy nga julli sa julli juróom waaye ngay joxe asaka waaye ngay aji màkka su fekkee mën nga ko waaye nga woor sa weeru koor kon nekk na loo xamante ni si nekkul jullit moo naan dama ko damay damay seet su neexee ma defal la déedéet waaye ngant yi rek mooy faman ko minkum mariidan aw alaa safarin fa iddatun min ayyaamin ukhar xanaa koo xamante si dafa feebar dafa feebar moom diina ji mettiwul su boobaa su fekkee bakkanam da cee dañ koy digal mu dog ak kooram wala mu bañ a woor bakkanam bu tanee mu daal fay koo xam tamit day tukki ci misaal te li muy tukki mat na 72 kilomètres gën kaa gën kaa néew kooku te dina fa def 4 jours yu mel noonu kooku su wee mu bañ a woor waaye nag wa an tasuumu xayrun lakum la aaya ba waxoon mooy ngeen woor moo gën foofu ngeen daal di bañ bu ko defee nag eh, jaamu yàlla yépp rek boo ci gis dafa am li ñuy wax ay farata am ay sunna am ay ngëneel am yoo xamante ni dañ koy ci jaamu yàlla mooy koy def soo ko deful rek maanaam ñu daan la yàlla bindal la bàkkaar boo xamante ni boo deful naag jéggal la ko dina dana jafe sunne sunna nag mooy li nga xamante ni si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam mi nga xam yàlla da koo yónni daay wa maa lépp lu mu leen indi la jógee loolu mooy sunna ji nga xam ne moom ku ko deful dëgg am bàkkaar waaye nag bàyyi nga topp yonent bi te eh, yonent bi waxoon na man axyaa sunna nii faxat axabbani wa man axabbani kaana maay fil janna yal na ci yàlla boole képp koo xamante ni góorgóorlu nga ba ni ma jàngalee sunna nga koy jéem toog na nga xam ne yow yaa ki ma sopp te man kay yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp ku ma sopp rek maa ngi yow insha allah ñooy bokkandoo nekk àjjana yàlla ni ko yàlla boole defal waaye eh, yeneen bi mooy yoo xam ne su weesoo sunna dëgg-dëgg sax du farata du farata bi waaye boo ko ci doolee mu daal di gën a baax yi ñu sib nag mooy yi nga xamante ni si ah ku ko def doo am bàkkaar waaye moytu ko moo gën yi xaram na ci jaamu yàlla ba nekk mooy loo xam ku ko def da am bàkkaar bu ko defee bu ko dee tënk rek ci koor moom moom ay farataam moom ñaar yi nga xamante si mun cee ñàkk moom bëriwul ñaar dong la koor dañuy wax farataam bi ci jiitu mooy yéene xam nga jaamu yàlla bu ñu lay wax rek day ànd yéene waaw ndax innamal a'maalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa yonent bi nee na jëf joo gis rek ca yéene ji la kon nit ki si misaal ci yéene la ñuy daal di la ñuy daal di rawante doomu aadama ci dundam lépp ci yéene iya lay rawante jëf ji yéene ji bu bu xasee ba rafet ba baax rek donte sotti na wala sottiwul rek daanaka baax na waaw su ma amoon yéene génne téeméer wala ñaar fukk jox si Moussa ma dem ba ci biir gisaatu ma ko sama poos yàlla dina ma fay tuyaaba ga ndax damaa yéene yéene bu rafet waaye wal iyaazu billaah ku ku woon def lu bon a xaajale ay nit ak yooyu itam noonu la leen dalee kon yéene lu mat a bàyyi xel la yéene ci koor nag mooy fas yéene daal téye sa bopp ci lépp loo xamante ni si benn dalay yàqal sa koor waaye lépp lu am njariñ te dinañ ci daaj agsi ngir lan am ci ragal yàlla gi yàlla wax la àllakum tattaxun xam nga ragal yàlla mooy tax maanaam yow loo dugg rek nga génn ca ragal yàlla ci ko ni ngay toggee ci néeg bi yow doo nga wéet fii frigidaire ne fi ceeb ne fi lépp ne fi nga tim ko dem ba koy waajal rek nga ne ah yàlla nga may gis kat te su ma gisee même su fekkee bu ma génnee sëñ Moussa ma gis itam yàlla gis na ma kon naa continuer sama koor loolu nag dañoo bëgg bu koor gi jàllee mu def jeexantal ci sa jëmm ba foo wéet itam duma fa def bàkkaar waaye da ngay sóoraale sa borom euh, bi ci des waaye yéene euh, ni ma ko waxee rek soo su na saa boo yéene ni nag fas yéene ngaa woor weeru koor yépp rek benn yéene bi baax na donte nag guddi gu jot comme nii tey ci guddi nii mën nga yeesaal si yéene nga ne maa ngi fas yéene waaj yéene woor suba waaye benn yéene bi rek yóbbaale na wér wér ba mu des nag su fekkee ni feebar dafa amaat ci diggante bi nga feebar kooku moom soo tanee bay tàmbalee boo waraat da ngay yéene yéene waat bu bees jigéen ñi tam nga xam ne leen yàlla bindee dañuy am ay règle yu leen di dikkal su règle yi tanee bu ñuy tàmbaliwaat seen koor dañuy yéene waat yéene ju yéene yéene ju yees koo xamante ni seen tukki boobu ma wax da ko tukki woon ba ñibbisi ba fas yéene kii at tamit day yéene waat yéene ju bees kon loolu nañ ko ñu daal di bàyyi bu baax a mooy mooy farata ci koor dañuy wax kaffu anil muftiraat mooy fekk sa bopp ci lépp loo xam ne si day yàq koor maanaam lépp luy yàq koor rek